noo jàngatee une source A tey. waaw am na solo titrage yu am solo. Mm-hmm. surtout euh, dans un premier temps si li Aline njëkk évoqué muy assises yi. Mm-hmm. je pense que ça s'inscrit dans l'ordre normal des choses. Mm-hmm. parce que un état bu nga xamante ni def na plus de cinquante ans d'existence. loolu laaj na ñu refor ñu defaat refondation au niveau des institutions pour que ñu mën a niveauté waat les institutions par rapport au contexte bi nga xamante ni fi la toll. parce que jamono day avancé. contexte day avancé mentalité yi également dañuy avancé kon jaar na état boo xam def na loolu ci ab diir ci ay at ñu fëggaat ko souvent dama naan bu fekkoon ni sax ay yére la yére yi poussière na ba war nañ ko fëggaat niveauté ko par rapport ak li nga xamante ni moom lañ toll donc moo tax ma ni ça s'inscrit véritablement dans l'ordre normal des choses et que le président euh, Bassirou Diomaye Faye bi mu nekkee di def campagne ci élection présidentielle yi dañu décrier woon le comportement de la justice parce que moom mi nga xamante ni tey moo nekk président de la république ku ne xam na ni ca kaso ba la jóge daal di nekk président Sénégal la ko yóbbu woon ci kaso ba décrier woon nañ ko à travers benn tweet bi nga xam bindoon na ko doon ñaawlu li nga xamante ni noonu la magistrat yi doon doxale par rapport ak procès bi nga xam dafa opposé woon Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang par la suite ci lañ ko jàpp yóbbu gis nañ li xew yëpp ci moment yi nga xamante ni moom lañ génn ci ñaari crise yi nga xam dafa opposé woon usman Sonko Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko Adji Sarr mhm. demoon nañ ba Sénégal yu bëree bëri dans leur tête également jàppoon nañu ni justice bi véritablement c'est une justice bu nga xamante ni dem na ba créer installé du moins une gisanie kumba am ndey ak kumba amul ndey parce que gisoon nañ ñu doon jàpp ci kaso bi ñu bëree bëri mhm. euh, ci benn parti politique la ñu bokk wala soit ci opposition bi la ñuy bokk te lañ leen doon jàppee ci pour la plupart am na ci beneen wet gi ñoo xamante ni daan nañ def lu mel noonu parce que gis nañ ci ay plateau télé ay yoo xamante ni nguur gi lañ doon défendre doon nañ wax wax yoo xamante ni normalement waroon na leen mën a yóbbu kaso mais gis nañ ni dara fekku leen ci kon sénégalais ñoo dem ba defal seen bopp constat ni ah justice bi kat tëddeewut njaxanaay donc président de la république ak Ousmane Sonko gis ni véritablement ni ni justice bi di jëmee ci kaw opposition bi te euh, mel ne lu faral nguur gi loolu lu war a dakk la te même bu dul loolu itam dañoo gis ay couac yu bëree bëree bëree bëri au niveau de la justice sénégalaise parce que souvent damay wax ni ñun boo génnee am nañ kiiw di bàq suñu justice di bàq suñu ay droit mais jaadu na te yoon la aussi tamit aujourd'hui ñu jëlaat suñu droit niveauté waat ko par rapport au normes internationales parce que des fois dafay am loo xamante ni fii àq ak yelleef daf la koy may les norme internationales les conventions daf la koy may suñu constitution daf la koy xañ te bëri na jiixi jaaxa bu amoon ci diggante euh, l' affaire Ousmane Sonko Adji Sarr muy affaire bi nga xam ne dafa concerné woon affaire contumace gis ngeen coow lim ci juróon bañ ko tegee loxo ñii ne contumace contumace la ñii ne du contumace alors que l' article 307 bu code de procédure un nga xam loolu la jàng loolu la xam moom ak Ismaïla Madior Fall ni ni ko ni ñu ko théoriser ak ni demeewul noonu kon nga xam ni bari na lu lëndëm ci suñu ay institution lu ñu war a leeralaat ci élection présidentielle yi aussi gis nañ la fa xew ba ñu reporté élection présidentielle yi demoon nañ ba tey jii may waxante yow boo moytul dañoo naroon a tombé dans une situation bu nga xamante ni suñu suñu loi wu réew prévoir ko maanaam un vide juridique maintenant nag laaj na aujourd'hui l'ensemble de ces vides juridiques là soit comblé en revanche mooy ñu def une révolution juridique pour que manquement yëpp ñu combler ko ba nga xamante ni véritablement euh, suñu institution di ñi nga xamante ni tey ñoom la yàlla jox nguur gi dafa am loo xamante ni moom lañ war a doxe maanaam tey dañu woote pour tëggaat ay assises yoo xamante ni véritablement dañuy ñëw pour euh, mayaat doole justice bi joxaat ko tey confiance bi nga xamante ni dogoon na ci moom li ko dox ak citoyen mën naa nag démarche boobu du dem lu dul ci bâtir un état de droit parce que dañoo yàggoon wax ni Sénégal état de droit ko ci dialogue bi mooy bari na ñoo xamante ni bokku ñoom sax ay parti politique ni ko suñu constitution également waxee kon lu am solo la ñu defaraat ay assises yu nga xamante ni véritablement dina fexewaat ba justice bi mën a nekkaat une justice indépendante. Mm-hmm. parce que sénégalais yi nee nañu justice bi amul indépendance te am na lu Omar wax léegi. autant autant même même même bu ñu. bu autant Serigne pourquoi on conjugue autant parce que. même autant sax après dañoo dañoo wax le droit a été dit. Mm-hmm. xam nga bi bi bi bi sept sages yi eh, génnee daal ni wax dëgg yàlla euh, euh, euh, li ñu ci mën a jàpp te xam ko ci mooy. président Macky Sall le deux la sa mandat di yem. Mhm. amul prolongé amul dara. te li nga bind jox ñu ko bataaxal bi dàq nañu ko et cetera. Mhm. ñu ni le droit à etc. Mhm. man dama ja dañu jàppoon ni peut-être. waaw dañu xaw a favorable fenn. waaw ñu ni ñu yoon am na. voilà moo tax mu défavorable feneen. waaw ñu ni justice à à deux kii. à été rendu voilà donc moo tax li nga wax mu am solo pour que ñu vraiment. non c'est vrai c'est vrai parce que xam nga euh, ku nekk ak appréciation. tey bari na ñoo xamante ni mën na peut-être ci kujje gi la ñu nekk bu ñu at atte justice favorable leen comme li nga wax léegi ñu ne justice bii dañ ko corrompre wala nangam ak nangam mais dafa am loo xamante ni kii analyser ak kii def constat bi moo ko moom te ñun ñii ñëpp bari na loo xam gis nañ ko ci doxalinu justice jàpp nañ du noonu la waroon doxee wala par parloo am na ci wax naa ko wax naa ko sànq ci ñi nga xam ne dañ leen doon jàpp fee la ñu féete te ñii ñu leen ndax fee la ñu féetee mm-hmm. te justice warul doxee noonu parce que bu ñu nee justice mooy équité mm. mooy droiture mm. mooy juridisme donc mooy légalité des citoyens devant la loi loolu nag lu manqué woon la ci gestion bi nga xam noonu la doon gestionné bi nga xamante ni mooy justice bi par rapport au conseil supérieur de la magistrature ah, ah, ah. tey kuréel googu laaj na ñu def ci ay réformes comme ni ko Omar waxee. tout à fait voilà alors euh, euh, AIBD vite fait balaa ñu je pense que aussi. Mhm. li ma waxoon li ma tàmbalee rek laay waxee ça s'inscrit dans l'ordre normal des choses parce que moom moo am ay principe yu mu évoqué principe yi ñetti terme la jub jubal jubbanti bañ na ko ba bi mu toogee quelque jour après dafa bind benn euh, note adressé ko aux agents de l' administration mm. ñi nekk ci administration bi wax leen cher collaborateur mm. ba rappeler leen la loi de 2012 di leen rappeler éthique ak déontologie mm. pour que véritablement ni nga xamante ni noonu la administration bi doxee ñu indi doxalin bu yees ñu gën a sérieux parce que l' dafa am un role colossal bu muy jouer pour le développement de notre pays boo gisee tamit ñu indi projet lanceur loi bi nga xam ne dafay ñëw pour protéger les lanceurs d' alerte loolu yëpp dafay jëm ci transparence tey li nga xamante ni tey xew na AIBD loolu yëpp dafay rejoindre encore une fois li nga xam moom la président doon wax muy transparence parce que am réew kenn mënu koo defar sans transparence kenn mënul bâtir un état de droit sans la transparence kon nañu def gestion bi Euh, ba nga xamante ni comme euh, li Omar wax léegi du du directeur bu ñëw balaa ngay dérouler da ngay xool li jaaduwut parce que am na lu jaaduwut lu nekk fa parce que dans l' on a vu des emplois fictifs yoo xam kenn xamul fu ñu jógee loolu c' est ce qui s' est euh, ci bi nga xamante ni que mooy mhm. alors Omar ñu daal di ñëw rek vite si si si la une des autres euh, journaux balaa ñuy dalal nag suñu suñu suñu gan gi lan moo gën fës ak mhm. euh, benn roplaan Air Sénégal waroon dem màkk moo tardé mu tuddee ko nag ay lënt lënt yu bëri ñi nga xamante ne ñooy ujaa ji nekk ci ab euh, njàkkare ba tax na ñoom Euh, roplaan gi da leen bàyyi foofu ci fi nga xamante ni nag euh, moom la ñu mooy ca aéroport ba ba tax na ñoom euh, ñu meex ba futu di sàkku nag ci nguur gi mu daal si indi ab saafara jëwriñ gi moom mu ngi jéem a sooye yëf buñ ko dégloo les échos la tribune des ci loolu moom journalu Bougane Gueye Dany bi moom nag ab euh, yëfu amateur la ko daal di tuddee di roplaan Air Sénégal gi nga xamante ni moo woon dem Màkka mujjul dem nee na lu toll ci ñaar fukki million nag euh, lañ si ñàkk la nguur gi di ñàkk ba tax na nag euh, ñi nga xamante ni ñooy ujaaj ji di ñaaw lu ni mel El Malick Ndiaye di jëwriñ gi ñu dénk wàllum dem ak dikk bi ci jaww ji ak ci suuf si nee na tardé googu dina jeex tey ji ci altine ji buñ ko dégloo moom journal bii di la tribune laas euh, des daanaka ci loolu di euh, li nga xamante ni moo xew ca aéroport Blaise Diagne la safara la ujaaj yi di dundu ak compagnie bii di Air Sénégal Ourey Thiam nag euh, moom mi nga xamante ni